Euh, dal leen ak jàmm dalati leen ak jàmm mbokki internet yi ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu saa su nekk rek sa jëm sa partage say commentaire ñu ngi xaar ci suufu vidéo bi chaîne chaîne YouTube partout TV ñu dikk ak yéen ci li nga xam ne rek moom a ki tey ci yi nga xam ne rek mën nañ ne di nañ di woon a ci li nga xam ne mooy ay doublon ci fiche de parrainage yi ni ki tey nag mën nañ lu ci toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ñoom daal di a saytuwaat ba xam nan la bay di mujjee wala bokk naka la ñuy def pour mën a participer ci li nga xam ne rek moom mooy élection yi bokk sa a fees ci ñoom ki nga xam ne moom mooy ki nga xam ne rek moom mooy maître El Hadji Diouf mën nañu ñoom ñooñee kat bokk si yi nga xam ne rek niki tey ci altine ji war nañoo daal di caytu li nga xam ne rek moom mooy seeni dossier gannaaw nag bañ leen dàqe woon ci deuxième tour yi nekkat war nañoo daal mot mottali ji li nga xam ne rek moom mooy ay fusée de parrainage ci euh, lim boo xam ne rek bu takkoo takku niki tey nag war a nekk li nga xam ne moom mooy seen dernier sens niki tey ci jamono boobu ki nga xam ne rek moom mooy euh, kii di euh, El Hadji Diouf wala boog sax ki nga xam ne rek moom mooy président Ousmane Sonko gannaaw nag ba mu daal dee joxoñ rek ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye booba ba tey gis nañ nekkat woyul dëtt wala mu woy deret nekkat am na lu bare bari loo xam ne rek moom moo des gannaaw ba ñu daal jot kale candidature ki nga xam ne rek moom mooy Bassirou Diomaye fay rawatina nag candidature président Ousmane Sonko nekkat dafa am ci fichier loo xam ne rek moom moo sa manqué tax nag weer wa nga xam ne rek daal dinañ koy mujj joxoñ nekkat candidat wala bokk ñi nga xam ne rek ñoom ñooy avocat yu président Ousmane Sonko fa seen nañoo daal di continuer mbir mi nag ba fa mbaxana doonee benn lan moo waral ñu daal di teppi li nga xam ne rek moom mooy seeni dossier ba ne leen dafa manqué